الماء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 mbokki M-Media Group nooru daara ni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa di leen nuyu nuyoo bi gën a sell te muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala di leen ziyaare di leen ndokkeel di jël nuyoo boobu ak ziyaar boobu di ko jaare ci loxool sunu kilifa kilifa gi rek ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko siyaar bu baax di ko ndokkeel di ko ñaan mu jot li ñu nuyoo boobu mbokk yi jullit yi nu bokkal liggéey bu sell bi yépp waaye di ko ñaanal mbàkke bàlla yal na ko yàlla dolli kattan ak wér ak xewal ba li mu bëgg liggéey maam xaadimu rasul lépp rek ci yoon maam xaadimu rasul mu man koo liggéey te nu ànd ko moom bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa di ndokkeel mbokk yépp rek di kontaan ci ñëpp ñi nga xam ne ñi ñoom la yàlla dogal ñu bokk liggéey bu sell bi di ñaan yàlla dooli noo defal tawféex dooli noo dimbali mooy ñu wër ak gudd gi fan ak fekk ak tal ak mujj bu rafet ak jaamu yàlla ak gunungu ak njëggal ak bàkkaar ak xéwal ak kàttan gunu gën a mën a liggéeyalee maam xaadimu rasul ñoo ngi koy ñaanal ñëpp di ñaan yàlla mu jàppandal ñu ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa ñuy jégalu bu baax rek ci jamono ji xat gi mu xat yu tey bari rek bu ko defee ñuy jéem a tàbbi ci liggéey bi rek comme laaj yi nga xam ne moo fi jot a rot ñu jëkk cee am tey laaj bi nga xam ne bii mu ngi jóge ci soxna Astafay mii ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko jéggal moom tey ab laajam mi ngi ko jël jëmale ko ci xasiday sëriñ bi moom muy laaj ne dafay gis ne daal wala dafay dégg ne dafay am yeneti xasida sëriñ bi yoo xam ni daal dañuy mooy tuuru ku koy jàng ak muy laajal ba xam ndax am na ay xasida yoo xam ne dañ ko jagaleel góor ñi ñu di ko jàng ñoom dong ak ñoo xam ne jigéen ñi ñoom lañ ko jagleel su ko defee loolu lañ ko ci tontu ci wàllu maanaam di moytulu yenn ti xasida yoo xam ne yii sëriñ Touba moo ko bind daal xam na loolu daan ñun amagun ci benn tegtal bu wér boo xam ne bii mën nañ jee sukkandiku ci ne li nga xam ne moom la sëriñ bi bind te am luñ ci gis lu néew a ci loo xam ne dafa feeñ ñu di ko jàng daal ñun gisaguñ ci benn tegtal bu wér cëng ci ne yi am na ci yenn xasida yoo xam ne dañu koo war a moytu ngir di ko jàng loolu itam xam naa dina aaju ab gëstu bu bare waaye ndax bari na luñ koy dégg lool ñu di ko wax naa am na ci xasida yoo xam ni dañ ko war a moytu di ko jàng xam naa loolu itam ñu ne itam man daal ci li ma xam mooy man gisagoo ci benn tegtal bu wér waaye tamit koo xam ne yàlla dogal na nga am ci lu wér ne am na si xasida yoo xam nii moom dañuy moytul ku ko jàng la loolu ñun boo ko baaxee dinañ ko bëgg lool dinañ la ci gërëm bu baax a baax waaye ñun dal gisaguñu ci benn tegtal waaye tamit eh, amatuguñu eh, genn benn tegtal bu wér ci ne xasida yi dañ koo ber ngir yii la jigéen ñi war a jàng waaye tamit yii la góor ñi war a jàng loolu tamit ñoo ngi sàkku ci képp koo xam ne ki yàlla baax na la gis ci tegtal bu wér ci ne ne kat xasida sàngam yii yii la góor ñi war a jàng yii la jigéen ñi war a jàng loolu itam ku ci am ab tegtal bu wér a wér ci loo ca xam ci lu leer loolu man la dem noonu lay dagaan nga baaxe na ko bi jëy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa xasida gi nu gën a dégg nag moom mu gën a ràññeeku ci ñu ne dañuy moytu lu ko ko jàng walla boog ñu koy jàng lu bari mooy xasida gi ñu wax jaalibatul maraaxi bi waaye wax dëgg yàlla bu ñuy xool xasida gi ca tàmbali ba ca tàmbaleeg téere ba ñaan nga nga xam ne kii moom la fa sëriñ ba ñaan ngir nga xam koo xam ne gi da koy jàng waaye itam demaat ba téere bay bëgg a mat maanaam mu daliwaat ñaan googu gu am solo googu ci képp koo xam ne kii da koy jàng yaakaar naa su fekkan ni dañuy bañ ko ko jàng wala ñuy bañ ku ko jàng lu bari daal ñaan googu yaakaar naa moom du ko fenaa kon sëñ ba du ko ci def loolu tax man ci laay tegtaloo ne daal jàllibatul maraaxib moom mu ñu wax sax naan dañ koy waruñu koy jàngalu bari sax man loolu man moom gëmuma ko teguma ko wax dëgg la ndax liñ bi siñ bi li ma fi ne wahab li kulli wahab li kulli man yaqra'uhu saadatan wa barakatan wa afiyata daari ni ca tàmbali téere boo duggee ca biir ba jàng ca lu xaw a dugg ci biir noonu seen bi maa ngi lañ ñaan yow yàlla képp koo xam ne kii yaa ngi jàng bayit yi ma bind ci jaalibatul maraaxib bii képp ku koy jàngale wax ne la yàlla na nga ko may euh, ak texe ak barke ak jàmmi àdduna ak alaxira ca ca ca tàmbale xasidegam ca biir noonu boo demaatee itam ba xaside koy bëgg mat da day defaxaat wadd faax bihi xabla tawajjuhi laayin ila siwa xaari ihi antal moin yow yàlla maa ngi la ñaan xasida ak jaalibatul maraaxi bii daal képp koo xam ne kii da koy jàng yal na ko musal ci iblis balaa iblis a jublu ci moom sax maanaam maa ngi lay ñaan nga fegal ko ko bala moo jublu ca moom dàq dàqal ko ko mu jëm ci ñeneen ñi nga xam ne dañuy sàggane jàng xasida gi daal di waxati wajulub liman yaqra'uhu xayra muraad waslukhu yaa rabal wara xayra maraad daal di ñaanal moom si mbir yow yàlla maa ngi lay ñaan xasida ak Jaalibatul Maraaxib bii daal képp koo xam ne kii yaa ngi koy jàng maa ngi lay ñaan yàlla yow yàlla nga teg ko ci yoon wi nga xam ne yow moo la gënal waaye tamit maa ngi lay ñaan nga euh, wajulub wajulub liman yaqra'uhu xayra murad yow yàlla maa ngi lay ñaan képp kuy jàng xasida yi nga may ko lépp loo xam ne li moom la bëgg ci aw yiw waaye nag waslukuhu yaa rabal wara xayra maraat waaye tam maa ngi lay ñaan ku koy jàng nga teg ko ci yoon wi nga xam ne mii mooy yoon wi la gënal wahab liman yaqra'uhu ma yaxbidu bi siwaahu yaa jamilan yunshitu maa ngi lay ñaan itam képp koo xam ne kii da ngay jàng jaalibatul maraaxib bi bayit yi nga may ko loo xam ne lii képp koo xam ne kii du ko jàng comme na ma koy jànge da ko cay ñee te maa ngi lay ñaan itam mu nga defal képp koo xam ne kii eh, mi ngi koy jàng mu am ci ak cawarte goo xam ne kii eh, dana sawar ba gën laa mën a jaamu gën a mën a jublu ci lépp loo xam ne lii lu baax la kon yaakaar naa ñaan yu mel nii su ko sëriñ bi ñaanaa ci ab téere ci xasida gum bind te lépp jëm ci ñeel ñi nga xam ne ñi dañ koy jàng ñoom la koy ñaanal yaakaar naa suñ ko doon moytulu wala ak ngi da ci nekk defe na sëriñ bi du ci jël di ci ñaanal ñi nga xam ne ñi ñoo koy jàng kon daal ñu dal amaguñ ci benn tegtal ci ne nan ko moytu wala genn xasida gu mën a doon waaye comme na ma ko waxeen fee rek ku nu ci mën a baaxee xam ak koo xam ne am nga ci tegtal bu wér a wér dal bëgg nanu nga baaxe nu ko ngir ñu mën a xam nan lañ ci taxawee waaye daal liñ jikkam fi mu dal mooy genn xasida goo xam ne gi dañ koy moytu ngir di ko jàng moom maanaam man moom gisaguma ko moom xasida gépp koo xam ne gi moom gis naa ko man koo yor man koo jàng moom bu soobee yàlla man dama koy jàng te it xasida goo xam ne gi góor da koy jàng wala jigéen rek ñoo koy jàng moom it ba tey gisaguma ko kon daal ñu defar ceeb gëstu bu baax a baax yeneen laaj ci topp Basiru Fay moom itam moo ko tàbbal ci liggéey bi ci groupe bi ñoo ngi koy ziar bu baax a baax dafay laaj lubsul azafir al istimaaiyati foofa al azafir atabiyati xukmuhu day laaj ne waaw yokk ay we maanaam monte ay we yoo xam ni maanaam nit da ko liggéey ñu di ko def ci ay baaram ak eh, yokk ay xeef maanaam monte ay xef loolu lan moo ci ab atte dégg ne ne loolu comme yo monte ay we wala monte ay xef dañ ne man xuliat azafiruhu li maradin waxtaaja ila zari azafirin sinaitin fala maania min dalik daal lislaam daal bu fekkee ni nit ki ay weyam dafa yàqu bay ñaawal ay loxoom mu mën a am ay weyoo xam ne da koy monte ci ay baaramam tey bu demee bay bëgg a jàpp wala muy bëgg a mu mën koo dindi neneen bu boobaa loola dara newu ca ndax jéem yi dafa yàqu di ñaawal loxo yi nga xam ne su ko bàyyi noonu rek wax dëgg yàlla ku gis loxo yi day day waar nee su boobaa doñ la ko tere waaye tamit eh, nee itam bu fekkee ni ci ay monte ay xef la itam nee man usiba bi maradin aw xarxin wa naxwi zalika fa atlafa hadabal ayni mimma adda ila taxayuri shaklihi wa qobxi suratihi fala xaraja fihi dana itam bu dee ay xeef la itam nit ki maanaam mu mel ni dafa lakk wala benn feebar dal ko maanaam boobu bi mu lakkee noonu maanaam lakk-lakk yooyu daal di yàq maanaam foofu nga xam ne fi mooy xeefi bët yi nga xam ne mënatu ko am nga xam ne day ñaawal xar kanam bi waaye tamit eh, ñu xool ne kii daal mën nañ ko defal ay xef yoo xam ne xañ na ñaawaay boobu dina dañit neneen bu boobaa lislaam dana la ko may waaye nag bi xilaafi man yadaoho li zinati falaa yajuz ne nag bu fekkee ni nit ki moom maanaam ngir defaroo ko ngir defaru ngir taaru ngir yokk ab taaram doo nga tax mu di ko def moom duñ ko may muy monter ay we waaye itam duñ ko may mu monter ay xef kon daal lislaam dalay mel ne bu fekkee ni feebar tax say we yàqu wala say euh, xefi bët yàqu may nañ la nga def fa ay xef yoo xam ni danga koy mën a dindi ci lu yomb wala nga monte ay we yoo xam ni di ko mën a dindi ci lu yomb waaye su fekkee nag da koy def ngir taaru dong te defe naa mooy ëpp ci ñi nga xam ne ñi moo koy dañ koy jëfandikoo ne su boobaa moom lislaam du la ko may da koy tere ne nag li tax ñuy tere loolu bu fekkee ni ab taar dong nga tax ne bu boobaa day bokk ci e, maanaam loolu ñuy tere te mooy soppi mbindam yàlla mi maanaam nit ki ni ko yàlla bindee mu di ko soppi e, ndaxte ne ne dañu xool xaddis boo xam ne bii yàlla da caa tere comme ay létt waaye da caa boolewaat comme monte ay xef yooyu ak ay we maanaam ak yu xeetoog moom yooyu bu ko defee itam beneen bi ci toppi defe naa tatouage la ne moom lañuy moom lañuy laaj tatouage yaakaar naa mooy bind ci aw yaram boobu itam dane zahaba jumhurul fuqaha ilal xawli bi xormatil washmi istinaadan ila alxadisi saxiix an ilnabii sallallahu alayhi wa sallam xaala laana allahu alwasilata walmustawsilata bu fekkee ni nag tatouage la comme di yett aw yaram noonu di ko bind di ca bind wala bu dee ni dañuy bind ci kaw noonu rek maanaam mu doon bind moo xam ne mu saxla du dañ ne ne fuqaha yi dañ ne daal loolu moom lañ koy tere maanaam bind ci maanaam tatouage suuf mu wax noonu te loolu ne ñu ngi ñu ngi tegtaloo xaddis bi yonente bi ne yàlla rëbb na kii létte maanaam kiy yokkal nit ki kawaram maanaam di ci bokk boole lu ca bokkut di ko ko yokkal ak ka nga xam ne kii mooy léttulu maanaam mooy yokkulu kawar ga waaye itam yàlla dafa rëbb ki nga xam ne kii day bind ci aw yaramam noonu bind moom nga xam ne mii day mel dañ ko ci yet marqué ko ca nga xam ne da cay sax ak ka nga xam ne kii maanaam moo koy defloo mu ne waqad adda baadu fuqaha il malikiyati wa saafiyati al wasma min al kabair bind moom nga xam ne mii nit ki da koy bind ci aw yaramam mu nekk loo xam ne li da cay sax maanaam dootul mañ dañ daal ñenn ci ñi xam ne ñii ci imam malik ngiram imam malik ci lañuy wax ci la ñu bokk ne ñoom dañ ne loolu sax maanaam ci bakkaar yi nga xam ne yi moo gën a màgg ci la bokk nee na nag bind boobu ñu bind ci aw yaram dañu koy def ñaari xaaj bu ko defee dafay wax ne eh, am na comme ñeene nañu dafa bokk ci bakkaar yu mag yi waaye ñenn ñi nga xam ne ñi dañuy bind fiqh dañ ne daal mbind moomu ñuy bind ñaari xaaj lañ ko muy mbind moo xam ne mii eh, la ca waaje la ca nit koy jublu di ko bind ci aw yaramam mooy da cay faju am feebar boo xam ne bi dañ ko ne daal comme boo mel ne lu mel ne ñaas sa yaram woowu mu def mu def ay lu mel ne ay mbind noonu feebar boobu dina dañ maanaam dina tane ne su boobaa dinañ ko may mu def loolu nga xam ne lu am ñaasu la ñu mën ko mën ko wax comme bind moomu la ndax su boobaa dañ naan ad daruraat tubiixul mahzuraat buñ demee ba loraange nar a am loraange yu ne nañu day maanaam day daganal la nga xam ne lii moom lañ doon tere beneen bay itam mooy bu fekkee ni lañ ca jublu muy bind ci yaram woowu euh, soxna si maanaam jigéen da koy def ngir di ca taaru ngir Euh, ab sëriñam donc nga tax nag mu ko def mu koy def su fekkee ni sëriñ ba digal na ko ko waaye tamit mbind moom mu ñuy def ci aw yaram ne ne dañu koy xaaj ñaari xaaj buñ ko defee lay wax euh, lan mooy mbind moom wax muy tatouage boobu mooy mu ne alwasmu athabit ak alwasmul mu aqat dafa am mbind moo xam ne mi nit bu ko nit ki defee ci yaramam day maanaam doon doon am marqué boo xam ne bii dajay sax te ne boobu mooy bi nga xam ne bii moom sax la bañ di ko tere moom mu ne wa huwa asaaru waxsil bil ibrati wa mil uhu bil koxli aw bi nga xam ne mooy bi ñuy tere te day sax nga xam ne bu ko nit ki xasee def ci yaramam dootul dañ nee na boobu pusa lañu koy defee maanaam dañuy wut loo xam ne dañu koy ñaase yaram bi bind ko ca ba nga ba bu ko bindee ba noppi maanaam wala ñu xotti ko def ci produit boo xam ne bi day tax euh, loole ñu doon marqué noonu ak pusa ba daal di sax ca wa dootul dañ ne ne boobu moom boobu dañu koy araamal beneen bi mooy alwashmul mu aqat nee na am na beneen boo xam ne bi tam dañ koy bind ci aw yenn waaye moom maanaam du yàgg maanaam day gaaw a dañ waaye boobu it ne nañ ñaari xaaj lañ koy def maanaam benn bi mooy mbind moo xam ne mii maanaam buñ ko rëdd ci yaram dina xaw a yàgg tuuti waaye du ca sax dina mën a dañ loolu mooy mis la wash mi talwiinin talwiini muhiti shifa aw muhitil hawajib ne mi ngi mel ni comme li yi maanaam ñu marqué ko xam naa lu mel ni am njam njamam tuñ lay doon wala li nga xam ne lii moo wër bët bi noonu maanaam ñu def ko lu mel ni comme ña façon jam boobu nga xam ne bii moom lañ daan def bu yàgg ñu xaman ko ne boobu dana xaw a yàgg waaye bu yàgg itam mën naa dañ ne ne boobu moom eh, li ci waa fiq wax ba tey boobu dañ koy bañ ndax nee na jéem dina yàgg ba lu mu néew dina mat ñetti at nee na su boobaa boobu itam dañ koy bañ waaye tamit lañ te tegtaloo ci bañ kooku tax fuqaha yi di ko bañ mooy ayab alxuraan bi yàlla wax ne iblis maanaam seytaane danañ wala udillannahum wala umanniyannahum wala umanniyannahum yu amurannahum fala yubattikunna azana al anami wala amurannahum fala yuxayyiruna xalqallahi aay bi nga xam ne bii iblis de caa waxaan yu bare bare yàlla ne ko dinaa ko def loo sa mbindeef yi muy nit ñi mooy dinaa leen réeral dinaa leen def ñuy mébét nga xam ne bëgg àdduna rek la ñuy def waaye itam dinaa leen diggal ñu yàq noppi jur gi nga xam ne gii moom nga bind waaye tamit dina leen diggal ba seen jëmmi yaram ya maanaam ñu di ko soppi ñenn ñi nga xam ne dañuy tere nag mbind moomu di sax ci yaram wi eh, ne ñu fi ñu sukkandiku ne dafa araam mooy fi mu ne euh, fala yu xayruna xalqallaahi wax ji iblis waxaan yàlla ne ko dina leen digal ba nga xam ne seen yaram wa sax maanaam dañu koy soppi ci wàllu mbind moom nga xam ne mii moom lañ cay bind mu cay sax noonu su boobaa loolu tax ñu ne ñoom dañ koy araamal beneen bind mi nga xam ne bii dañ koy bind ci aw yaram te doon boo xam ne bii dafay am waxtu gàtt boo xam ne mën naa dañ mooy wacc mun mu àqatun yazulu sarian mithal washmil xinaayi wa tabi al jasadi nee na nag am na bind moo xam ne buñ ko bindee ci aw yaram maanaam lu mën a dañ la maanaam day gaaw a dañ maanaam boo ko raxasee comme ndox sax mu dañ eh, lu mel ni maanaam nit ki jël fuddan maanaam dessin ne ci aw yaramam maanaam def ko ci ay tàngam wala ay loxoom def ko ay dessin wala fu mu ko def ci yaram wi wala ñu jël eh, loo xam ne lu mën a bind la ñu di ko bind ci ko aw yaram nga xam ne loolu moom mën naa dañ su fekkee ni bëgg nañ koo dindi rek day daal di dañ ne ne boobu daal mooy bi nga xam ne bii moom rek la ci fuqaha yi nungu ne bii daal moom may nañu nit ki mu def ko kon daal mbind moomu ñi bind ci yaram daal bu fekkee ne lu charia nungu la lu baax la te def góor wala jigéen di ko def jigéen maanaam bu boobaa bu fekkee ne buy saxla moom bu ci mën a doon maanaam dañ na boobu dañ koy aaye waaye bu fekkee ni bu yomba dañ la te lislaam la ko lu mel ni fuddën wala lu mën a bind loo xam ne di mën naa daal di dañ su boobaa daal d'accord nañ ci bu dee ni lu baax lañ ci jublu bu dee faju lañ ci jublu la yooyu su boobaa may nañu nit ki mu def ko waaye nag bu ci mën doon ci ñaar yooyu mooy xam bi yàgg bi doorutu dañ wala bi yàgg ba pare na ko dañ ak bi nga xam ne bii day daal di mën a dañ bu mu ci mën a doon nag bu ko julli di def maanaam su fekkee ne da ko def ngir di ca roy lu uh, yéefar ya nañu koy defee ak di ca bind mbind moo xam ne bi maanaam doon loo xam ne li lu charia nangu la daal su boobaa moom duñ la ci may benn moom nga di ko def ci saw yaram beneen laaj bi ci topp soxna Cubba Njaay moo koy laaj ne ne lay laaj man faatahu salawaatu yawmin kaamil li maradin kayfa yaqdiha ne ne koo xam ne ki julli bés da ko raw maanaam juróomi julli dafa feebar ba mënut na juróomi julli raw ko ne ne julli yooyu su demee ba koy fay nan la koy fayee kon loolu lañ ci wax mooy nit ki bu fekkee ni juróomi julli da ko raw walla lu matul juróomi julli su koy fay yooyu lay njëkk a fay maanaam bu waxtu julli teewee maanaam mu war koo julli balay julli waxtu woowu teew day fay juróomi julli yooyu ko raw ba pare wala bu fekkee ni matul juróomi julli it mu fay ko doog julli julli gi nga xam ne gi moo teew masalan bu fekkee ne juróomi julli dalaa raw maanaam ba geneen jullik tisbaar jot ci jamono jooju tisbaar jotee ne nañu dañ lay wax ne la bala bala ngay julli tisbaar da ngay fay sa juróomi julli yooyu nga xam ne yi moo ba pare doog a julli julli nga xam ne gii moo teew kon julli yi nga xam ne yi bu la rawee moom nga war a fay ba pare doog a julli julli gi nga xam ne gii moo teew daal mooy mi ngi yem ci juróomi julli ak lu ko gën a néew li tàmbale ci genn julli walla ñaar wala ñett wala ñeent wala juróom lim bu ci mën a doon bu la ci bu la ca rawee loolu ngay fay dugg a julli waxtu wi nga xam ne wi nag moo teew su ko defee it waxal nañ fi fatwa bu ne xaw a mel ci wàllu euh, bàyyi julleeg yooyu ndax xañ na nit ki moom ak manqué ak ñàkk a waaye feebar sax dañ noonu maanam ak nu mën a demee rek war ngaa góorgóorlu ba jéem a joxe waxtu woo su jotee taxte tamit nañ ne di la ko wax ba ne noo ko mane rek ba mu àgg ci tëdd bay liyaar xañ na nag feebar moom dina àgg foo xam ne fii manqué rek doomu aadama dina tax doo ko tal ba tax danga koy bàyyi noonu rek waaye bu looloo amee tamit soo wéree moom la la ci julli moom na nga ko fay su fekkee ne dafa toll ci juróomi julli rek nga fay ko dogo julli julli gi teew su ko ëppee nag léegi. waxtu wi teew moom nga julli ba pare yeneen yee la rawan te ëpp juróomi julli soo ko mënee fay nga daal di koy fay maanaam bu ne nga daal di ko julli soo ko mën it maanaam noo ko mën a fay daal nanga nga fexe ba saa bu julli jotee te mu des nga julli julli nga teew te boo paree yooya la la yàlla rawan nga fay ca la nga xam lii moom nga ca war a fay. sëriñ Alioune Badara Ndiaye oustaz mbal mbi ñoo ngi koy seer bu baax a baax moom itam dafay laaj ne man faatal hu rakataani mina rubaayati wastuxlifa sëñ Badara Ndiaye dafay laaj ne ne koo xam ne kii dafa ñëw ci jullit mbooloo gi nga xam ne julli ga jullit ñeenti rakka la moo xam julli tisbaar la wala takkusaan la wala gee julli la daal koo xam ne gi ñeenti rakka la war a doon waaye moom dafa ñëw fekk ñaari rakka raw ko ci léegi bi ko ñaari rakka rawee nag ci biir julli gi balaa imam di mottali julli ga am na ngàndal faw day xëcc nit ci ginnaawam ngir mu mën a mottali julli googee ne nga xam ne ñaari rakka raw na ko waaye bi imaam bi demee ba mënatula àggale julli ga da koo xëcc tombeek maanaam mu xëcc ko mu war a ñëw mottali julli ga nan lay motulee julleem nga ko waaw loolu moom luy mën a am la te it lépp jàngalekati fiq yi waajal nañ ko tegal ko ni nga xam ne ni maanaam noonu la war a demee ndax ak julli boo gisee ñuy wax sujudu sahweek muy jóotëb euh, ku jóom ci julli euh, ak imam buy dem ba mënatul a dem mu wut ku mu wutu mooy julli daal bu ñu joxasee dugg noonam maanaam juum ca wala am luñ ca yàq du tax maanaam ñu dagg julli ga luñ ko war a dagg waaye dañoo war a fexe nu ñu defaree lañu ñu juum ca julli ga wala la nga xam ne lii moom lañ ca yàq waaye ak julli dañuy bañ nga dugg ci bu bare juum wala nga yàq ca dara daal di koy dagg di tàmbaliwaat looloo tax kon ki nga xam ne kii loolu da koo dal muy ñaari rakka raw na ko ci julli ñeenti rakka léegi imaam am ngàntal mënatu la àggale julli ga mu xëcc ko moom moomu nii lay def ba àggale julli ga maanaam àggale julleek mbooloo ga àggale ak julleem itam mooy yutimul xalifatu al masbuuxu bil xawmi salaatal imaami thumma yushiru lahum bil intizaari wa yaqumu li xadaa ma fa ida ataa wa sallama sallamu bi salaamihi masala bi ni ko fiqhi tëralee nga xam ne ni la kooku war a def mooy ne bu ko imam xëccee ne moom moom mu ñëw taaw remplacer imam léegi maanaam day mottali julli nga xam ne gii maanaam moom li imam tàmbali na ak mbooloo ma maanaam day ànd ak ñoom ñaari rakkaa yi ñu dese léegi su ànd ak ñoom ñaari rakkaa yooyu nag léegi ñoom mbooloo ma dañuy toog maanaam moom moom mu ñëw remplacer imam ja da leen di junjune leen toog leen xaar ma ma mottali sama julli maanaam da leen koy junj maanaam ñoom it boobaa day aajo ñu xam ne noonu la war a def maanaam da leen di junj ngir ñu toog xaar ko moom mu julli ñaari rakkaam yooyu nga xam ne moo ko rawan su ko defee su ko jullee ba noppi fekk ñoom ñu ngi toog di ko xaar sëlmalaguñu su mu tëddee ñaari rakkaam yooyu daal di sëlmal ñoom mbooloo ma itam ñuy door a sëlmal ginnaaw bi mu sëlmalee ki nga xam ne kii daal moom la ñu raw ci julli gi ñaari rakka yooyu ñu def ko xalifa maanaam ñi wuutal ko maanaam imam wuutal ko noonu lay def day mottali julli ga daal di wax mbooloo mi maanaam daleen di junju ne leen toog leen xaar ma bu mottilee ak julleem muy ñaari rakka ko rawaan daal di sëlmal ñoom itam ñuy dog a yeneen laaj yi ci topp suñu Fallou Guèye moo ko fi yónnee muy laaj bu jëkk bi jëm ci lu wàllu jaay jënd ak jaay suñu fàllu gi dafa ne al insaan la stajarahu taajirun li bayin lahu li yabia lahu wa xaddada saman al bidaati fa hal yajuuzu lil mustajari iza baa bidaatan bi akthara zamaniha al muhaddad an yaxuza ziyadata dafa laaj nekk ki nga xam ne kii dañ koo jël maanaam ab jaaykat da ko jël teg ko ci palaasam mu di ko jaayal ne ko nag léegi marchandise mu nekk mu ne ko nangam lay jar léegi mu ne waaw marchandise yoo nga xam ne wax nañ ko bu ci nekk la muy jar bu client ñëwee moom moomu ñu bàyyi ci palaas bi muy jaay fekk maanaam dañ koy jaayloo léegi ñu noonu ko marchandise sangam mi nangam lay jar masa nañu noonu kon bunt bii ñetti junni lay jar maanaam bi client ñëwee moom moom mu jaay bunt ba lu ëpp ñetti junni maanaam mu jaay ko ñetti junni ak ñeenti téeméer wala ñeenti junni ndax day jël loole nga xam ne lii moo tege ci li nga xam ne lii moom la ko borom place bi waxan wala déet neneen loolu lay laaj li muy laaj daal mooy nit ki da jël di la jaayloo ne la marchandise mu nekk nangam lay jar bu client ñëwee bu la fayee lu ëpp mu ne ndax loole ma ëpp sañ nga koo jël wala déet loolu lañ ko ci wax mooy isa wakkala insaanun xayrahu fil bayi aw shiraai silaatin fa lay lil wakili an yarbaha dañ ko naan nit ki su la jëlee ci palaasam di la jaayloo maanaam day nekk ci ay anam yoo xam ni faaw ñu leeral ko mooy nit ki su la jëlee ne la dama bëgg nga di ma jaayal waaye dama lay fay su boobaa marchandise moom nga xam ne nii moom ngay jaay yow njëggam la waxam ne la maanaam moom lay jar soo ko jaay lu ëpp itam maanaam loolee cay tegee waroo ko jël loolu moom maanaam doo ko mën a jël maanaam bu fekkee dalaa jël ngeen mu ne la damay dama lay teg ci place bi nga di ma jaayal waaye marchandise bi moom nangam lay jar su boobaa nangam lay jar jooju am du tax maanaam soo ko jaay lu ko ëpp nga jël la nga xam ne lii maanaam dafa tege ja lam la waxan ndax dala wóolu teg la ci béréb bi di la fay jéem waxante ngeen ci ak fay rek moom yow lii sa warteef mooy marchandise moom loo ci mën a jaay itam su boobaa lépp nga ko war a jox bu boobaa it loo ca jël nag bu fekkee da ngay jël lu ëpp lam la waxan maanaam bu boobaa eh, ak wor lay doon tey du doon loo xam ne lii maanaam lu dagan ci yow la ndaxte ne li annahu mu'taman bal ma jaa min rabhin fa innahu yarji'u ila saahibil maal ne ne buñ la tegee ci béréb ne la dañ lay fay ngay jaay ngay jël la nga xam ne lii day tegu ca njëg ak marchandise ba maanaam day ëpp ne ne bu boobaa yow Euh, dafay mel ni kóolute gi ñu la defaan da nga dindi maanaam ay war lay doon te it doon loo xam ne lii alal joo xam ne ji yaa ko war a moom la waaye borom bërëb ba moo ko war a moom bu ko defee loolu lay leeral ne la wa isa xaala saaxibul maali bii silata bi kada wa xaddada shara fa baaxal wakilu bi azjada fa ziyadatu takunu li saaxibil maal mooy li ma wax ne rek ne ne bu la nit ki jëlee di la fay di la jaayloo daal njëg yam la waxaan moom bu ëppee itam du tax nga war ko mën a jël waaye nag bu fekkee ni dalaa jël ne la maanaam eh, toogal ci palaas bi di ma jaayal wax la lu nekk mu ne la nangam la jar ne la nag léegi yow bunt bii ñaari junni laa koy jaayee lu ci tege nag mën nga ko jël eh, fenêtre be junni laa koy jaayee lu ci tege jëlal maanaam daal mën a daal marchandise mépp bu ci nekk mu wax la lu muy jar lu muy jar ne nag léegi yow njëg yi ma la jox daal soo boo ci jaay lu ca tege rek loola maanaam mën nga koo jël maanaam bu boobaa bu fekkee ne da fay te waxtaan nga waxtaan nga waxtaan na ci yow ba ne la mën nga jël su boobaa mën ngaa jël loolu yu ëpp su fekkee ni fayu la itam waaye nag dana rek maanaam daal njëg yi ma la jox lu ci ëpp mën nga ko jël su boobaa di ko mën a jël kon daal ñaar yëpp itam lu mën a nekk la ci bu ngeen di waxtaanee ba juba ca mooy donte dalay fay waaye itam may na la it lim la wax ci ay njëg mu ne la lu ci tege jëlal bu boobaa mën nga ko jël waaye su la ko waxoon nag doo ko mën a jël waaye itam su la ne da ngay toog nii rek di jaay waaye du ma la fay waaye lu tege ci njëg yi la ma la wax mën nga ko jël su boobaa it koo mën a jël kon daal mooy foo moom fi ñu koy tënk rek mooy da ngeen cee waxtaan ba juboo su ngeen ci juboo ci moom nungu na d'accord nag yow ngay jël lay ëpp nga mën koo jël waaye su ngeen su ca d'accordul nag di la jaayloo rek su boobaa yow doo mën a jël la nga xam ne lii mooy ëpp ca jëg ya nga xam ne yi moom la la wax beneen laajam bi moom fàllu gi dafay laaj xukmu sujudi tilawati wama yuxaalu asna sujudi wama yanubu ani sujudi isa lam yatamakkan beneen laajam bi day jëm ci wàllu jàng alxuraan xam nga alxuraan dañ cee def ay aay yoo xam ne boo ko jàngee booy jàng kaamil ba àgg ci aay yooyu aay boo ci jàng rek ba mu jeex aaya ba jeex danga nga war a sujjóot boo jàngee aaya booba doog a continuer sam njàng lay laaj nag sujjóot boobu nga xam ne bii moom lañuy ñuy sujjóot bu ñu jàng alxuraan ci yenn te aay lan moo rib waaye tamit boo koy sujjóot jamono ji nga koy sujjóot lan ngay wax ca biir sujjóot ba waaye tamit soo demee ba sujjóot boobu jàppandiwut mënoo ko sujjóot ci jamono jooju ngay jàng lan moo mën a remplacer sujjóot boobee ñu koy wax ne ko sujjóotu tilaawati sunnatul mu akkadatun sujjóot sujjóot boobu ñu sujjóot ngir jàng alxuraan ab atte mooy sunna su dëgër dëgër la sunna la maanaam yonente bi sallallahu moo ko diglee waaye tamit dafa bëgg ñu di ko def maanaam sunna bu dëgër dëgër la ne dañ koy àtte mooy eh, sunna la eh. fa ida faalaha al insaanu usiba alayha wa in tarakaha la yuaqab ne ne nag sunna la jéem sunna la nit ki su jàng alxuraan su ko defee dina jël amub yool waaye su ko bàyyee itam maanaam eh, dara du ko ca topp maanaam duñ ko ca topp dara maanaam dara du ko ca war tey wa dalilu zalika ma sabata an omar ibn alxataab annahu xaraa sajdata allati fi nahli ala al minbar fa nazala wa sajada suma xara fi jumaati al uxraa falam yasjud dana li tax mu ne la sujjóot boobu muy sujjóotab jàng alxuraan boobu yi na la soo xam ne si boo ko defee am jab yool waaye soo ko bàyyit maanaam dara du la ci fekk maanaam duñ la ca topp dañ ci tegtaloo li nga xam ne ni ñu ngi ko jële ci Omar ibn Khattab mu def ko ci wàllu sujjóot boobu ne ne Seyduna Omar ibnul Xataab mës naa nekk ci kawam minbar di jàng alxuraan ci saar woo xam ne mooy suuratu naxli xam nga suuratu naxli dafa am ab sujjóot am na ay boo xam ne bi boo ci àggee da ngay sujjóot ne ne Seyduna Omar bi muy jàng bàgg ci ay boobu dafa wàcc daal di sujjóot daal di yéegaat ci minbar bi waaye ba beneen ajjuma ba dellusee nag bi mu jàngaatee foofu mu doon jàng ci sóoratu naax li ba àggaat ca euh, ay bobe ne na génneel àjjuma nga maanaam sujjóotu ko dafa continuer rek daal di continuer ca njàng ma kon foofu dañ fi ay tegtaloo ne kon sujjóot bi dal boo ko defee baax na waaye boo ko bàyyiwuti boo ko bàyyi itam du yàq dara te bi ko Seydina Omar defee ba pare dane inna allaha lam yufrid alayna sujuda illa an nasha ne na daal su su jóotab jàng alxuraan daal yàlla farataalu ko ci ñun waaye sunu la soo xam ne si daal suñu neexee mën nañu koo def ngir wut ca ab yool waaye suñ ko bàyyi itam dara duñu ko fekk te nee na loolu bi mu koy wax wa zalika bi xuduri saxaabati saxaaba yi ne na ñoom booba fekk nañu xew-xew yooyu te maanaam dañ caa ànd ak moom waxuñu ca dara kon loolu dafay tegtale ne sujjóot boobu daal sunna la mënees na ko def ngir wut ci ab yoolu waaye soo ko bàyyee euh, dara du la ca fekk bu ko defee itam sujjóot boobu boo koy sujjóot mooy li ngay wax rek booy julli ba dëpp sab ji ci suuf muy subhaana rabbil aala ngay wax ñetti yoon loolu ngay def booy julli ba dem di sujjóot loolu ngay wax naa subhaana rabbil aala ñetti yoon booy sujjóot sujjóotab jàng alxuraan boobu yit da ngay wax subhaana rabbil ala ñetti yoon rek boo ne allahu akbar subhaana rabbil wax ko ñetti yoon daal di siggiwaat ak ab allahu akbar waaye doo sëlmal nag bu dee sujjuutam bu jàng alxuraan la su fekkee ne nag jamono ji ngay jàng aay boobu nga xam ne bii dañ caa war a sujjuut te sujjuut boobu jàppandiwut maanaam mënoo koo sujjuut ci jamono yooyu lii mooy remplacer sujjuut boobu nga xam ne bii moom nga waroon a sujjuut dangay wax subhaanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim su boobaa lii mooy wuutu sujjóot boobu bu fekkee ni jamono yee mënoo koo sujjóot yal na yàlla defal tawfiq bi jay sinama sallallahu alayhi wa